Djilor Saloum. naka waaj Saloum. ñëpp a ngi si jàmm. waa ca bismillah lan nga gis ci campagne bi. sant yàlla rek. Hmm. sant yàlla di ñaanal Ousmane Sonko mi nekk si biir kaso bi te ñu yàggoo leen di wax na rek am nañ yéene pour mu génn te ñu ngi koy defal ay ñaan pour mu génn mais ki baax si Sonko mooy cinquième président Sénégal ki baax si Sonko jamono bi ñu toll nii. mooy mooy cinquième président Sénégal gis nga ñi ñi tey damaa fas yéene arrêté gum sama liggéey bàyyee ko xale yi concentré wu si sa sa sa sa débat ndaxte boo seetloo comme li ma la wax yow international nga ndaxte doo sant doo national kese addina bi yëpp dañ lay déglu dañ lay bàyyi xel ngir yar ak teggin bi nga xamante ne moom ngay toogee si plateau bi ku mu neex am nga ko ku mu naqari am nga ko mais nag lenn rek moom moom laa lay xaw a meree hmm. mooy gis nga journaliste boo demee boo bu nga toog ci plateau war nga mun a ràññee ñi nga xamante ne bu ñu commencé ne xaar rek wax rek war nga mun a xam seen wax fan la jëm kenn ku nekk nag da ngay sa xalaat munoo wax kenn ne coupeel ma kii coupeel ma kale mhm. xanaa kuy saaga koo xamante ne mu ngi ciy wax waxi salte mais nag dafa am yoo xam ñoo xamante ne dañu maanaam rafetlu wuñu plateau bi ngir nit ñooñu genre nit ñooñu ñun nag xam-xam la ñuy waxee chaque jour xam-xam la ñuy bëgg di waxee ñu kuy kuy kuy kuy wax ne kii li mu wax du dëgg xooluñu ku ñu saaga tey xooluñu ku ñu saaga bàyyi xooluñu ku ñu def ku ñu wax leneen ñun li ñuy xool dañ ciy concentré wu bu baax xam ne lii ñuy wax ni dara mënu koo dindi euh, élection yi dina am si jàmm ak salaam mm-hmm. démb maa ngi dal si benn journaliste démb ne ko yow yaa ngi toog ba minuit toog toog nit ñi ngay def ngay def plateau nit ñi di lay woo nga leen di wax ne Madiambal Diagne nee na lii Madiambal Diagne nee na lee dugg na fii génn na fale loolu mu wax noonu yëpp dara amu ci benn bu ñu yaakaarloo doom yi Sonko dafa am njaboot Bassirou Diomaye Faye am njaboot te Bassirou Diomaye Faye ñëpp a dëkk ak moom kon tey boo waxee ne kii dafa war a génn kii dafa war a génn ay njabootam di yaakaar loolu fekk nekku nekku dëgg ma ne leen ma ne journaliste bi lan li sa plateau bi te nga dem tëddi nga bàyyi nit ñi ngay solal kii du génn kii jour bu war a génn du jour bii kii kii jël président Sénégal kooku moo koy génnee ci kaso bi te te te kii jël président Sénégal cinquième président Sénégal dafay betti àddina bi dafay betti képp koo xamante ne jàppoon nga ne mbooloo ma la topp moo lay fal yaa ngi nax sa bopp cinquième président Sénégal kooku yàlla si signé na ko ba pare barke Cheikh Ahmadou Tidiane Amadou Ba moom mooy jël cinquième président Sénégal kooku kenn munu ci dara te kooku moom mooy moom mooy médecin yi Sonko kooku moo baax si Sonko kooku mooy jàppale Sonko kooku mooy jàppale képp ku sës si Sonko wax waxoon naa Macky Sall démb ne ko waxtaan bi wiiri wiiri bu yóbboo jaari ja wiiri wiiri bu yóbboo nga jaari ndaare ndaxte saay boo waxee ne ñu ànd ak keneen ku dul Ba yéen ñi yëpp da ngeen di nermé lu te Amadou Ba dina jël réew mi ngeen ànd ak moom dina ko jël ngeen bañ a ànd ak moom dina ko jël ndaxte luñ lu yàlla signé boo paree la loolu kenn munu ci dara xam nga boo waxee ñu naa ma li ñëw ëllëg yàllaa ko xam dugg na fii génn na fii yàlla bu fekkew na lim lim moom daf ko daf ko bàyyiwu doomi aadama baaxewu ko doomi adama kon mu jur doom am jabar am njaboot yàlla amul doom amul dara li mu am yëpp doomi aadama yi la ko jox doomi aadama yàlla may na ko yaqiin bu war a xew suba mais ñun dañoo toll si wax dañoo war a wax gis nga buñ buñ duutee baaraam saltigi ne saltige dafa war a at bu at lay wax loolu du dëgg buur moom mooy wax at bu at bu waxee balaa muy waxaat at ba jot mais saltige moom moo nekk loo xam ne buur tey bu taxawee jaraaf taxaw sal saltige sal ci saltige dafa war a taxaw si wetam mu am sens bu bu bu boobaa raaya bu ñuy joxe saltige war a taxaw si si si si jamono boobu wax li war a xew suba wax li war a xew si nawet wax li war a xew si population wax li war a xew si buur bi wala faru wala président bi war a falu bu faloo lii ak lii ak lii mooy am mhm. mais li baax si askan bi sëy bi mhm. barke Seydina Mohamed tey laay mujjee wax ak yow plateau nag ba saay bu Amadou Ba jëlee réew mi mhm. man maay ñëw toog foofu jàkkaarloo yow wala ne sal digi waale Diouf lépp lu ma la mos a wax del bàyyi xel bu baax li ma lay wax man dama la ne Amadou Ba bu ko neexoon sax mun na yónni ay ndaw ñu campagne mais moom moom deux mille vingt quatre dafa am loo xam ne nit ki bu ko moomee ba pare yàlla da lay fanqal ay saytaane gis nga li doxagum fii nii yëpp ñuy wax waaw Amadou Ba jubóo nag Macky Sall yàqoo nag Macky Sall yàqu ñi ñi ànd ak Macky Sall bugguñu Amadou Ba dugg na fi loolu yàlla moo koy fanqal saytaane boobu yàlla moo koy mooy leeral ay mbiram. Mhm. Amadou Ba dafa am warsaki pouvoir am warsaki population am warsaki waajur te loolu pale bee képp ku am lu yëpp lu mu yóbbante foofu. Eh, mhm. ku am lu mu yóbbante foofu fonde nga am loo yóbbante muy gerte. nga am loo yóbbante foofu muy tabax bu rafet nga am loo yóbbante foofu muy askan bi nga am loo yóbbante foofu muy maanaam defar hôpital yi ñi nekk si immigré yi mun a ñib si investir fii ak béykat yi ak sàmmkat yi mhm. ak ñi nekk si si napp yi jox ko Amadou Ba te nga xam ne kooku mooy defar Sénégal kooku dina def loo xam ne gis nga xam nga cinq yi ma lay wax ni cinquième président jàngkati alxuraan yi boo leen boo leen ko joxee ñu xool baqara bu naas yi ñu xam lan mooy juróomeli pouvoir ñu firndeel ko ñu firndel la ko si alxuraan nga jox ko bii biibulu chrétien yi ñu firndel la juróom yooyu lan la firnde barke Seydina Mohamed dangay wax ni waali lii mu wax ni fan la ko jëlee booy bi yàgg na di wax depuis 2019 ba léegi boo mhm. seet loolu muy wax dara du mënu koo nermel xam nga waxoon naa leen ne Macky Sall loxoom si ndab li te bëggoon na dem boobu daane pouvoiram yàlla yàlla yëkkatiwaat ko dem na ba bugg a daanu far mu jéng jéng boobu mu siggiwaat jàkkaaroog askan bi ne àndi leen nag ki war a jël pouvoir bi te mhm. kooku moo koy jël d'accord kenn ku nekk nekk ci terrain bi nag amal jàmm amal salaam ñu ngi leen di ñaanal jàmm élection bi dara mënu koo puus mhm. merci beaucoup merci beaucoup merci incha allah merci ñu ngi koy eh, nuyuwaat eh, saltigi Waly Diouf doon woote depuis eh, Djilor Saloum mu jàpp ne ci xam-xam gi mu am Amadou Ba mooy daal di jël réew mi ci atum 2024 on verra Euh, on verra foofu daal laal loolu daal laa ci mën a wax donc nañu xaar moom la mu gis la wax nañu xaar keneen su gisee leneen itam wax ñu leneen 77 810 90 90 mbokk mi wootee kan la ak fan lay wootee salaamaaleykum. Euh, Régis doo mbaal yokkal ma tuuti volume parce que c'est dafa xaw dafa xaw a suufee allo yi wala sëñ bi su nekkee da nga takk ay écouteur nga nga nga tekki ko. kàdd takkuma ah, ah, gi daa xaw a suufee nga baal ma. waaw yaa ma dégg bu baax. ayca bismillah. waaw ma ngi lay ziar bu baax a baax. delloo ziar bu wér. waaw di kontaan ci intervenant yi dugg yëpp. merci beaucoup merci. waaw ñu leen di ziar bu baax. Mhm. waaw mën de sànq dama déglu waa ji di wax wàllu expérience. Mhm. te ñu ngi wax ci côté expérience yor réew ñëpp. Mhm. maanaam ñu épingle lañ ci sàcc àllu réew mi may laaj expérience xanaa ku mënul sàcc moo dul am expérience. mais kuñ dénk lu àll Sénégal yëpp moom nga sàcc si loolu mooy loolu mooy maam boo ci sàccee am nga expérience boo ci sàccul amoon expérience xam nga ku mel ni Bassirou Diomaye fay ak ku mel ni président ko dañ leen dénkoon dara ci administration bi ñu yor ko yor bu am solo boo xam ne mosu ñu jëlal Sénégal dërëm moo tax Sénégal yi am kóolute ci président ko topp ko mu jaral leen lu ne léegi nag ànd gi ñu ànd ak moom Euh, Macky Sall def lu tout ànd ak ñi mu àndal xeex ko ne du dem élection ci xariñu président Sonko ak bëgg li mu bëgg Sénégal. Mhm. mu taxaw joxoñ ku mel ni Bassirou Diomaye fay Sénégal yi taxaw ànd ak moom mu jàppale ko mais ñeneen ñi nga xam ne ñu leen di tuddee ñoo am expérience ñoom ñëpp ko ci xool épingle nañ bu dee Karim Wade cent huit milliards la sàccal Sénégal yi daw ak moom génn ba léegi gis nga ko mënatu ñëw léegi. gis nga bu ngeen gisee sax waa PDS yi nii di bëri wax bëri yàgg naa ko wax bëri de seen làmmiñ dong rëy mais maam problème bi Macky Sall moo nekk ci ñoom nekk ci seen ginnaaw def ko bouclier ma maanaam comme moom bëggul dem élection da nekk seen ginnaaw di leen bu wax ci kanam yoon pour ñuy France euh, institution yi nga xam ne Sénégal am na ko yu mel ni ay conseil constitutionnel di yàq seen der parce que bu fekkee yow dañ la dénk nga wàcc constitution bi la nga wàcc ñoom bu mën a walaabul ba nga mën a jiite réew mi tey nga taxaw di yàq seen der di leen froissé te yow kenn ku wax dara ci yow ñu jàpp la jaale doole téye la loolu amul sens baaxul parce que yow bu fekkee ne yow mën ngaa reconnaître nag président nga mais conseil constitutionnel mënoo reconnaître li nga xam ne Sénégal yi lañ ko jox kooku ñàkk xam-xam la ak ñàkk gëm Sénégal noonu la Macky Sall di doxee léegi nag peut li ñuy def bu leen ci kenn wax dara nañ xam ne Macky Sall moo nekk seen ginnaaw nekkul bouclier pour bëgg ñu mën a dàq élection yi te loolu du fi am Uh-huh. waaw di wax na recours yooyu yëpp du doon dara. Uh-huh. di wax na nag euh, waa kii nu tudd Cour suprême nañ xam ne conseil constitutionnel lañ taxaw Sénégal yëpp ñu ko seen wet parce que yi Macky Sall moomu ko Sénégal yi ñoo moom élection yi te Sénégal dañoo pare pour dem élection. Uh-huh. wala kon loolu bu kenn ñëw ci ay tappaleem ak ay caaxaanam. ngeen jàppale ko ci ba xam ne yàqal nga Sénégal yi waaw ndax Sénégal yi moom. ala kulli ali ku ci nekk ki nga war a wotal da nga ko wotal mhm. amul kenn ku mën a dugg si rajo bi fii wala si télé bi di wax n'importe comment di ko wax naan ay bu leen fal kii bu leen fal kële ba mhm. nit ñi déglu si parce que mhm. nit ñi moom ñoo moom seen carte te xam nañ kan lañ ko war a jox te dañ dañ ko jox ku mel ne Bassirou Diomaye Faye te loolu amul kenn ku ci mën dara kon ay wax ak wax amul ci dara ndax boo xoolee yow ñi ngay wax di leen joxe ne am nañ expérience ñëpp dañoo sàccal Sénégal seen alal ba léegi Sénégal yi mënuñu see jot li ñuy wax ci Karim Wade Karim Wade gëmul Sénégal parce que bu bu fekkoon gëm nga Sénégal sa papa jox la maanaam mën nañ ko wax ministre de la sel xam na ko journaliste yi di waxee rek nga xam ne asamaan bi suuf lañ ko mën a firee. ministre du sel et de tey bu daan woyaas yi maanaam avion jëkk privé lay demee moom maanaam au lieu muy dem ci air Sénégal wala ay air France yeneen yooyu moom avion particulier lay yor avion boo xam ne jëkk privé lay doon mu ciy doxantu jël suñu milliards di ko sàcc. te ba Sénégal di xeexal baayam pour mu jël Sénégal kenn gisu ko léegi bi baayam faroo mu ñëw pour mën a procureur di sàcc àllu Sénégal tey mu sàcc àllu Sénégal bañ épinglé ko cent trente huit milliards mu xam ne bis bu duggee ci réew mën nañ ko jàpp teg ko mu toog noppi nekk fële di manipuler di jaxase mais conseil conseil nag di ñuy wax ay affaire de guerre yooyu noonu mais peut ñoom est-ce que xam nañ seen bopp bu baax a baax bu dee ci wàllu guerre ak sàcc ak def lu ñaaw ak doxalin bu ñaaw sàcc àllu Sénégal ci même protocole def ko ci lu ñaaw ñoom ci ñoom la commencé ci la yem. ba mhm. ci nguuru Macky Sall bi gis nga ñu ci épingle ñëpp. dafa naa gis nga ñu ma ma kii boo xoolee kii Mame Mbaye Niang. Mhm. gis nga ko épingle. nga Mamour Diallo quatre-vingt-quatorze milliards. gis nga ñoom ñëpp ay kat lañ def même protocole ci réew mi ton Sénégal yi dañu taxaw conseil constitutionnel taxaw di doxal te conseil constitutionnel kenn mënul wax ne. Mhm. def nañ dara Sénégal yi ndax ñoom lañ leen dénk ñu ngi koy doxal. man waxuma la sax ay affaire de nationalité Karim Wade de mais lim xàcc si àllu Sénégal rek ak li ñu ko waroon a épinglé waroon ko jàpp tëj ko ba léegi nii mu delloo ñu suñu alal rek loolu mënoon nañu ci sukkandiku bu du doon candidat waxuma la nag ay ñàkk nekk gi ñàkk nekk Sénégalais. d'accord parce ñàkk nekk Sénégalais bi mën naa firndewu ci comme maanaam li nga jëlal àllu Sénégal yi nga jëlal Sénégal yi. bu mhm. fekkoon gëm nga Sénégal bëgg Sénégal nga xam ne ay milliards la ñu mënoon si tabax ay hôpital yu dul jeex. Mhm. yow defoo ko nga sàcc ko daw rawale ko kooku boo bëggoon Sénégal doo ko xalaat kon buñ ne Sénégal nag foofu dama koy nangu bu baax a baax nangu ne du Sénégalais parce que bu nekkoon Sénégalais yow mii nekk journaliste tey buñ la dénkoon Sénégal xalaatoo si jël lu toll na parce que da nga naan lii mën naa tabax ay hôpital mhm. mën na koy jànku xale yu bëree bëree bëri mhm. boobaa boo demee ba xalaat boobu nekk ci yow rek mooy wane ne yow Sénégalais nga bëgg nga Sénégal mhm. mais moom comme xalaat boobu nekkul ci moom ba mu mën a jël cent trente huit milliards Sénégal yi moo la xamal ne gëmul Sénégal bëggul Sénégal. Khalifa Sall tamit même chose. Mhm. parce que lañ ko jël ci mairie boobu foofu bu fekkoon ne mhm. ko nañ ci dimbali nañu xam ne expérience daal man ni ma ko tuddee. Mhm. mooy ko xam ne dénk nañ la te mosoo jël àllu lépp set lépp lu la def ci jaay doole lañ ko teg ak ay caaxaan. kon la ñuy wax naan ay garsa gar gi ñuy wax président yooyu yëpp. garsa garsa mooy ku ma dóor ma fay. d' accord la yi ñoo gis boppam ci moom. ñoo gis seen bopp ci moom. mu taxaw di doxal. taxaw na nii laa bëgg a doxalee Sénégal ñu taxaw na ko du fi amee di ko xeex. Mhm. Sénégal yi nekk ci yaram nekk mhm. loolu danañ ko ci yóbbu see koy àtte ko loolu dafa leer loolu amul leneen luñ ci mën a wax. Mhm. waaw kon li ñuy wax daal man li ma gis daal mooy Bassirou Diomaye moom amul benn candidat bu ko gën a taxaw. amul candidat bu ko gën a jub amul candidat gën a baax amul candidat bu xam ne boo ko joxee Sénégal mën ko doxal ci leer ak jub ak kenn doodul sàcc àllu Sénégal lépp day jaar ci yoon waaye nag système bi ñoom ñëpp actuellement dañoo jëfur hmm. di rey seen bopp ko ci gis ku nekkoon ci rondal yi yëpp génn nañ parce que jëfur nañ waaye na nga xam ne seen jëfur googu dañu delluwaat ci seen rondal yi ndax Sénégal dañu taxaw def la tout par Bassirou Diomaye Faye Sénégal jar ci avancé Sénégal bu ne gis sa bopp ci réew mi hmm. kenn dëgul sàcc àll réew mi Sénégal avancé bu baax a baax a baax a d'accord merci merci beaucoup merci merci merci cant ak ngërëm ñeel na la